الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom di saxte di ko sant ñu ngi seede ne yàlla dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu di seede ne Muhammad day moo nekkoon ab yonentam bu mu yónni woon ngir mu jàngal ñu ni ñuy jaamoo yàlla yàlla na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi diin ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla texe gu wér àdduna ak alaxira du am lu dul ñeel jaam bi ragal yàlla gannaaw loolu mbokk julit sunu xutba tey bi mi ngi jëm ci benn saar saar wu mag lool alquran la ca nekk ci saar téeméer la ak fukk ak ñeent waaye mu am ca yoo xam ni yeyul ci ab julit góor wala jigéen mu bañ koo mokkal bokk na ci saar yooyee saar wu ñuy tuddee suuratul kaafiruun suñu boroom daldi ne yow yonent bi ca bi muy wax ak moom mi ngi wax ak jullit bi mujj judd ci kaw suuf ay qul yaa ayyuhal kaafiruun neel ay yéen yéefér yi laa abudu ma taabuduun duma jaamu li ngeen di jaamu wala antum aabiduuna ma aabud yéen nekku leen di jaamu li may jaamu wala ana aabidun ma abadtum man duma wëlbatiku mukk di jaamu li ngeen di jaamu wala antum aabiduuna ma aabud yéen it du ngeen jaamu mukk li may jaamu lakum diinukum waliya diin ñeel na leen seen diine man ñeel na ma sama diine mbokku saar wi ci gàttaayam dafay jàngal julit ci mu feeñal la nga xamee ne nii moom mooy deñ gu mu deñ ci yéeféer yi mboole seen yaa ngi naan qul yaa ayuha alkaafiruun mbokk xamal ne kaw suuf ñaari nit rekk a fi dox amuñu ko leen ñetteel mooy almu'min wal kaafir bu dee naafiq la naafiq mooy yéeféer bu sol bu bum julit waaye yéeféer la kon yow yaa ngi boole sa bopp ci jullit ñi nga daldi woo yéeféer yi yéeféer yooyee ak fu ñu mën a bokk nga ne leen xam leen ne day man jaamuwuma la nga xam ne nii moom ngeen di jaamu loolu muy wane ne kon ab jullit mooy ki nga xam ne mooy saxal ne moom am na kan lay jaamu am na ku muy jaamu am na ci ku muy jëlee la nga xam ne mooy ak njaamam looloo tax ba mbokk jullit jullit day day gëm ne yàlla jàlla wa ala la jébbulul yàlla moomu la jox léppam ndax yàlla moomu doonga ko bindoon ngir mu jaamu ko loolu moo tax suñu boroom ne ma ndax beneen diine la ñuy jéem a jàll day jéem a jaar te yàlla moomu jébbulul na ko li nekk ci kaw asamaan yi ak suuf looloo tax jullit day jàpp ne man asamaan suuf malaaka ak lu mu mën a doon dañoo déggal yàlla kese yàlla moom rek la ñuy jaamu muy benn yàlla moomu rek la ñuy jële niñ koy jaamoo loolu muy ñaar aka bari ñu jàpp ne war nañoo jaamu yàlla waaye ni ñuy jaamoo yàlla yeneen i xalaat lu bokkul ak lu jóge ci yàlla ca la ñuy jaar waaye jullit moom day dogg ci ne man yàlla rek lay jaamu te du ma ko jaamoo lu dul lu jóge ci yàlla mbokk loolu nag moom mooy nekk ci dundam gi yépp dundam gi yépp ay julleem ay sëyam ay commerçam ay jëflanteem yépp suñu borom ne neel qul inna salaati wa nusuki samay julli samay rey sama dund sama dee lépp yàlla laa ko jagleel booliwuma ci lenn loo xam ne lu ma koy bokkaaleel ay amul kenn ku may jóg di jaamu jëblu ci moom amul kenn ku may dem mu may jàngal naka lay jaamoo yàlla jalla wa ala loolu moo tax mbokk saar wi ci gàttaayam dana la jàngal ñetti mbir yu am solo ci sa dund mbir bu jëkk bi mooy la ngay jëkk a fas ci sa biir xol mu sax ci dàq ne man kat ab jullit laa boo xamee ni nii dama war a jébbalul yàlla war koo jaamu loolu moo tax ba suñuy yonente salallahu alayhi wa sallam xoolal njàng bi nga xam ne jàngal nañu ko jàngal nañu ne nit ki bu xëyee fajar nga xam ne bisam baa ngi tàbbi la muy jëkk a ubbee fajar googee mooy ñaari rakka ñaari rakka rek la ñu yoonal nit ki naafilaa ko gannaaw bi fajar jotee ñaari rakk kese ñaari rakk yooyu yeneen ki bi alayhi salaam ni taril bu njëkk ba qul yaa ayuha alkaafiruun ba ca des nga tari qul huwa allahu ahad mi ngi noonu ñu dem ba guddi gi jeex jant ba sono guddi gi tàbbi boo julli timis ba pare ana lu ñu yoonal foofu ñaari rakk yi ca teg qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allahu ahad lii mooy la nga xam ne abdullah ibnu masud nettali na ko ci ne day ko ma ñaata yoon laa dégg ak yonent bi di ñu jàngal ci ne ñaari rakkay fajar ak ñaari rakkay timis ngalawaay nañ cee jàng qul yaa ayuhal kaafiruun ak qul wala wa ahad suñu demee ba guddi ga di jeex nga xam ne yaa ngi nekk ci witre ca mbokk shafa ak witre dafa war a nekk lu tëj say naafila guddi suñu yaay Aïcha nee na yonent bi alayhi salaam lu mu ca daan jàng nee na ñaari rakkay shafa ya benn ba sabbih isma rabbika al aala lay jàng ba ca des qul yaa ayuhal kaafiruun lay jàng ñetteel ba lay doog a jàng qul wala wa ahad mbokk mi ngi noonu waaye soo demoon tey jii bay tëdd da ngay gis ne kii di benn sahaaba bu ñuy wax farwa ibnu nawfal nee na man day damaa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ko waa man su ma doon tëdd lan nga may déggal pour ma jàng ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko sooy tëdd day ngay jàng qul yaa ayuhal kaafiruun benn déclaration la boo def ci ne mucc nga ci lépp loo xam ne bokkaale la ca mbokk képp koo xam ne ba ngay faatu bokkaale woo ak yàlla dara mucc nga ci mbugulum yàlla ca àjjana assurel ñeel na la yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko mbokk qul yaa ayuhal kaafiruun dana topp julit mi xatta boo demoon makka ba wër kaaba ga bokk na lu yonente bi alayhi salaam daan def ñu yoonal ka fa mooy ñaari rakk yooyu ngay julli benn ba qul ya ayuha alkaafiruun ba ca des mooy qul huwa allahu ahad lii mbokk tamit boroom xam-xam yi sopp nañu bépp naafila boo xam ne ñaari rakkay kese la sopp nañ ca nga jàng ca qul ya ayuha alkaafiruun qul huwa allahu ahad mi ngi mel ne yow mi duggoon di nuyu jàkka ji wala yow mi defoon benn façon naafila bu mu mën a doon lii mbokk lu tax yonent bi alayhi salaam sunnaale ko ni ñu koy jàng fajar di ko jàng timis di ko jàng guddi di ko jàng waxtu wu nekk ngiree loolu mu yeesal la nga xamee ni nii mooy suñu pas-pas yeesal suñu dogu fàttali ñu ñu jëm ci borom boobu nga xam ne li taxoon mu indi ñu ci kaw suuf doo dara lu dul ñu jaamu ko kon loolu ñu war di ko fàttaliku fu ñu mën a toll ak jamono ju ñu mën a toll mbokk suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam ngir xemmeem looñu ñu baril di jàng qul ya ayuhal kafirun da ngay gis ne ñëw na ci ay xadis yoo xam ne Tirmisi solo na ko ku mel ne Cheikh Nasir Albani ne ci xadis yi gën a wér la bokk yenente bi alayhi salatu wasalaam ne képp koo xam ne jàng na la nga xamee ne nii moom mooy qul ya ayuhal kafirun mel na nga ko jàng kaaru alquran mi ngi noonu yàgg ngeen dégg ko jàng qul huwa allahu ahad mel na nga ko jàng ceeru alquran mi ngi noonu ceer mooy lu ñu xaaj ñetti yoon nga jàng benn ba bu dee kaar mooy ko jàng qul ya ayuhal kafiraan qul ya ayuhal kafirun mel na nga ko jàng alxuraan buñ ko xaajoon ñeenti xaaj nga jàng benn ba am nga yoon bu tol noonu lii mbokk muy war kon ñu war koo bàyyi xel muy loo xam ne daf ñuy jàngal dañuy fàttali heure bu ñu jógee jëm ci koor ñu xam ne ah man kat maa ne woon yéeféer yi jaamuuma li ngeen di jaamu kon koor gi yàlla rek a tax jóg jëm ci julli julli gi yàlla rek a tax damay dépenser ci sarax ah yàlla rek a tax ku may jëflanteel waajur ya soxna ya borom kër ya doom ya la dëkkandoo ya ah lii dama koy def ngir jaamoo ko yàlla mbokk saar woowu loolu la lay jàngal ñaareelu bind bi mu lay jàngal mbokk saar bi moom moo lay woo ci nga daa di doon koo xamee ne nii da ngay def déclaration ñeel yéeféer yi ne leen kat man jaamu wu ma li ngeen di jaamu wax naa la ci début xutba bi na la kan mooy yéeféer ndax mooy chrétien ndax mooy juif ndax mooy kiy jaamu xërëm déedéet mbokk yéeféer mooy képp ku dul julit yéeféer la ak kum mën a doon am na ñoo xam ne la ñuy jaamu mooy seen bànneexu bakkan soo demoon tey Occident jaamuwuñu jant jaamuwuñu garab jaamuwuñu jinne jaamuwuñu malaaka seen bànneexu bakkan mooy seen yàlla afara ayta man ittaxasa ilaahu hawaahu suñu borom mu ne xoolal ki nga xam ne yàlla mooy bànneexu bakkanam am na ñoo xam ne nii seen intérêt mooy seen yàlla am na ñoo xam ne tey jii politique moo leen gënal seen diine téeméeri yoon mi ngi noonu ñoom Bilal Thiam ñi may toogal xam nañ ni yàgg naa leen a wax képp ci yéen buy ñaan nay ñaan yàlla et yàlla yàlla nag ma may sama diine jaral ma politiciens yi leen politique jaral yàlla nag ma wërsëgal sama diine jaral ma ko. politiciens ngir am ndamam ci wàllu politique jaral na ko jël alalam joxe jël tam joxe dox des milliers de kilomètres wër Sénégal jaral na ko fen tappale transhumé jaral na ko rey nit jaral na ko joxe bakkanam joxal jaral na ko lu nekk ngiree politique boobee taxaw tey rek laa dégg ñoo xam ne ñu ngi taxaw ay jigéen di déclaré naan ñu bañ a boole Khalifa Sall ci élection yi sunu bakkan lañ ci teg jaral nañu lu nekk sunu bakkan lañ ci teg tey jii rek ay jigéen ñu koy déclaré loolee kon am na ñoo xam ne tey àdduna heure bu diine taxawee intérêt taxaw ñu ne sànni diine fële topp la nga xam ne mooy intérêt yi loolee kon mbokk yow yaa ngi leen di déclarer na leen hey man bokk ma ci yéen man yéen waa passion yi bokk ma ci yéen yéen ñii jaamu nit bokk ma ci yéen yéen ñii jaamu intérêt bokk ma ci yéen yonent bi alayhi salaam mu ne taisa abdu dirham wa dinaar ak alku koo xam ne dërëm ak dinaar mooy yàllaam su ko amee def su ko ñàkkee bàyyi lii mbokk kon la julit war a bàyyi xel bu baax mu bokk ci benn mbir boo xam ne yéen ndaw ñi ngeen def ko attention bokk na ci sunu jamono yi bi nga xam ne àdduna wëlbatiku na doon benn dëkk tey mbokk Amérique amatul Espagne amatul Italie amatul nit ñi ci benn dëkk la ñuy vivre bal benn dëkk mën nga caa nekk dara xew ca ñu nekk à dix mille kilomètres jëkkalu koo yëg jëkkalu koo comprendre loolu kon nit ñi duggante ci loolu nag la yéeféer yi bëgg a profité ba jàpp ne kon diine yi dañ ko war a def benn diine nit ki warul nekk naan fonk sama diine sama diine non non non war nañ fekk nu ñu juboo dëppale diine yi boole diine yi mbokk diine l'islam munta booloog dara mi ngi mel na nga yor sa boolu soow kee yor boolu deretam na la kaa ñu boole njar buñ paree naanandoo abadan diine l'islam du ànd ak dara loolee kon ngeen bàyyi ci xel bu baax déclaré leen ci ne déedéet ñun kay suñ seen seen diine jooje suñ yónnewu ci suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ya ayuha allazina amanu la tattaxidu alyahuda wannasara awliya baaduhum awliyau baad wa man yatawallahum wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma zalimin suñu borom mu ne ay yéen julit ñi bu leen yahudi ak nasaraan yi nax ba ngeen dem lënkaloo ak ñoom képp ku dem lënkaloo ak ñoom bokk nga ca ñoom ca yàlla du jubal xeetu toñkat lii la ñuy lislaam won firiwul nag ne nañ jóg dal seen kaw xeex ak ñoom waaye la ñuy firi mooy ñun suñu diine ji duñ ci bàyyi tarfata ayn duñ ci négocier dara lépp lu ngeen bëgg kay ñu jëfandikoo ko ci wàllu àdduna fa marhaban waaye nag ànd ak suñu teddaange diine ànd ak ñu téye suñuy pas-pas lii mbokk da ngay gis ne moom la jullit war a jëfandikoo malheureusement lu bari suñu doom yi rawatina ñu yàlla nattoo ñu tukki dañuy jàpp ne feeñal l'islam da leen di tardeel mi ngi noonu benn waaye mi ngi ma ciy nettali loo xam ne lu doy waar benn ci patron yi nekk ci Amérique woo ay jullit ñu nekk foofu ci service bi waaw di leen laaj waaw yow ndax jullit nga waa ji ne waaw julit la mu ne ko ndax vrai musulman pratiquant comme ki muy waxal yéeféer la ca xam ne ne bëgg na ci moom intérêt mu ne ko non julit la ah mais nag man du ma ñuy taral mu ne ko waa baax na di ko def ba woo benn waay na ko waaw yow ndax yow julit nga mu ne ko waaw mu ne ko pratiquant mu ne ko waaw mu ne ko li l'islam digle yépp ngay def mu ne ah li l'islam digle moom dara jarul lu ma koy changé mu ne ko nag yow laa doon seet ndax responsabilité yi ma bëgg a joxe ci kees gi ku mel ne yow rek laa ci wóolu mbokk li lum ñuy jàngal heure boo demee bëgg a jàpp ne teddaange mën nga koo am daal di suufantal sa diine yàlla dalay toroxal yàlla dalay toroxal am nañ benn politicien bu mag bu Sénégal yépp xam mu taxaw ci média international naan day suufeel kaabe gi di suufeel makka di yëkkati yahud yi wallahi damaa jàpp ne yàlla dana ko toroxal ca ku xam ki may wax ngal la waay di ko may ab carte boo ko mayee carte xeex nga diine lislaam maa ngi leen di yëgal loolu loolee kon yow julit xamal ne sa teddaange suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na wali walillahi alizza wali rasulihi wa lil muminin lii di teddaanga yàllaa ko moom teddaanga yeneen ti yàllaa ko moom teddaanga julita ko moom devant ki nga xam ne mooy dof boobu di kum mën a doon ci ñu jiite adduna bi ngal la waay xamal ko ne yow julit nga xamal ko ne de sa diina dara jarulu ko xanaa du bakkan bi bakkan bi li muy màgg màgg diine la ko gënal xanaa du kaso kaso bi li muy naqari naqari moo lay gënal nga ñàkk sa diine fàttali ko leen ne Yuusuf alayhi salaatu wasalaam waxoon bakk jigéen ñi woowee ca bànneex bi gën a màgg ci àdduna njaaloo mu ne rabbi sijni ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi yàlla tëddi kaso moo ma gën a liñ may woo jëm looloo tax ngal la way julit dañ lay dàq ci service bi dañ lay dàq ci sëy bi yow soxna si dañ lay génne kër gi bu dara tax ngay négocier la nga xam ne mooy sa diine mbokk am ma ñetteel bi nag bi ñu diine di bi ñuy xul yaa yu xal di woo daf ñuy woo nag ne lii nga xam ne moom la ñu wax lépp firiwul ne foo gis ab yéeféer na nga jël toj bopp ba foo gis ab yéeféer na nga ko won ak noonu akuk tar déedéet islam daf ñoo jàngal ne yow day fexeel ba sa position diine leeral ko sa position ngëm yàlla leeral ko waaye nag islam terewuñu ñu jëflante ak yéeféer yi jëflante boo xamee ni nii day aju ci wàllu adduna kese suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne laa yanhaakum allah an alladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin suñu borom mu ne yéeféer yi nga xam ne xeexuñoo gi yéen ci diini amul lor bu leen di lor maandu leen seen diggante na ngeen def njekk jëm ci ñoom suñu borom dafa bëgg ña nga xam ne dañuy maandu suñu borom wëlbatiku ne wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu li taqwa lu ngeen bañ bañ aw xeet bum tee ngeen maandu seen diggante maandu googu day moo gën a jege ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man qatala muahadan lam yarih raihata aljanna wa inna rihaha mi ngi noonu képp koo xam ne nii dafay rey koo xam ne nii islam dafa jàmmoo ak moom mi ngi mel ne masalan chrétiens yi nekk ci réew mi ñu nekk ci jàmm nga la jeg benn chrétien rek rey ko suñu yonent alayhi salatu wasalaam ne xetu xetu àjjana du la xeeñ wa rihaha tuujadu min masirati arbaina ama te yonent bi alayhi salaam nee na boo daan doon àddina ñiil fukki at xet ba di la xeeñ yow doo bokk sax ci ñi xet bii xeeñ loolu kon mbokk lan la ñuy jàngal moo di ne ne ñooñu nga xam ne ay yéeféer lañu ñooñu nekkul ci diine ay athée lañu chrétien juif lu mu mën a doon suñu war a gor ak ñoom mooy ñu wan leen mbaaxub lislaam wan leen taarub lislaam woo leen jëme leen ci lislaam yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na Ali ibn Abi Talib wallahi la an yahdi llahu bika rajulan wahid xayrun laka min xumuri naam yàlla jubal ci yow benn góor moo gën nga am la gën a taaru ca waruwaay yi nga xam ne moo xew ci jamono mbokk lii da ngay gis ne moom la ñu saar bu màgg boobu di jàngal mooy yow julit day feeñal nga sa ngëm yëg nga ko sa digganteeg sa bopp même bu dee xamoo benn yéefar ci kaw suuf qul yaa ayyuhal kaafiruun mi ngi lay woo ci ngay wéetal sa boroom sellal sa pas-pas waaye gannaaw ba mi ngi lay woo ci ne lépp loo xam ne doxalin la bu dul doxalinu lislaam mu jëm ci wàllu pas-pas jëm ci wàllu jaamu yàlla yow julit ngarawaay waroo bokk ci loolu waroo jege ci loolu gannaaw ba itamit mu lay jàngal ci ne loolu firiwul nag ne da ngaa war a jóg def loolu rek ak noonoo bu dul jeex bal na nga doon koo xam ne kuy jëfandikoo ak ñoom ci wàllu àdduna na nga xam ne noonu la gën a rafete ay yéen mbokku julit xutba bi yépp bu ngeen ko déggee da ngeen xam ne fenn rek lañ jëm fi ñu jëm mooy lan mooy ñi ngi ci ñaari feet yu tege suñu kanam li ñuy tuddee 24 décembre ak li ñuy tuddee 31 décembre 24 décembre mooy lan mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala wàcceel nañu benn saar boo xam ne wax naa leen sànq ne jàng ko mooy jàng ceeru alquran muy qul huwa allahu ahad suñu borom ne xamal ne yàlla kenn la allahu samad mooy sangu sang yépp lam yalid walam yuulaat jurul kenn kenn juru ko walam yakun lahu kufuwan ahad amul kenn kuy naw leen chrétiens yi ñëw ne déedéet alquran li nga wax amul bal yàlla ñett la allahu thalisu salaasa mi ngi noonu yàlla am na isa am na mariama mi yaayamit yàlla la ba ëllëgi gi si biir suñu borom dana wax isa ibnu maryam a anta qulta linnaasi ittaxizuni wa ummiya ilahayni min duni allah ndax yàlla yow isa yaa waxoon nit ñi ne nañ la jël yàgg sa yaay def leen ay yàlla loolee ma ko kon chrétiens yi li ñuy waaj a feetal mooy weddi alquranul karim loolu muy benn ñaareel bi suñu borom nee na bi ñu jëkkee déclaré ne ci ne yàlla am na suñu borom mu ne wa qaalu ittaxada arrahmanu walada laqad jitum shay'an idda takaadu alsamawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu alard wa taxirru aljibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattaxida walada mbokk suñu borom mu ne ñoom day ñi ngi naan yàlla am na doom moo ne day loolu bañ ko njëkkee wax asamaan xaw na xotteeku jóoru seen kaw ca gaa yi wa ma asamaan suuf xaw na xar mëdd leen montagne yi xaw nañu explosé bi ñu déggee doomu aadama naan yàlla am na doom waaye yow ay yow julit nan ngay déggee lii weddi alquran asamaan bëgg ci xotteeku suuf bëgg ci xotteeku ba pare yow julit nga naan da ngay ànd ak ñoom ci feet yooyee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ngal la waay loolu bu nekkee na doon la passé loo xamul woon waaye ngal la waay des sa dund fexeel ba bu ca dugg bu ca dugal sa njaboot Omar ibnul Xattaab ba nga xamee ni nii ñëw na ubbi Palestine nga xam ne moo doon capitalu lépp luy diine nasaraan ak yahud ca jamono jooje ca jamono jooje bokk na lu mu leen mayoon seen jàmm ak seen sécurité mais charte yu ñu doon signante mooy bu seeni feet ñëwee da ngeen koy nëbb seen kër du ngeen ko feeñal ci kanamu jullit ñi loolu moo nekkoon charte ba tey jii nag jullit ñi seen bopp ñooy feeñal feetu kat catholique yi feetu catholique yi ci seen mbedd yi seen tali yi ak seen biir kër yi loolee mbokk dañu jàpp ne dañoo xamul waaye nga lawa yow mi dégg xutba bi wala xutba bu mel ne moom xamal ne loolu ak kéefér la loolu féetal sa bopp ca ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp ku nurul aw xeet ca ñoom nga bokk ndigal bi ma lay mujj digal mooy ngalawaay defal na ñoom mbokk tey jii boo demoon ca chrétien yi nekk occident feneen sunu feet di koor ak korité seen yoon niwu ci xamuñu sax ndax feet am naam feet amul yow jullit loolaa lay dénk 24 décembre yemale ko ak 3 mars 31 décembre yemale ko ak 15 avril bu ca def dara léeg-léeg ñu nax ay nit ah non 24 chrétiens yee ko moom mais 31 jullit yi ñoo ko ñépp ko bokk mbokk loolu amul 31 décembre fête la bu ñuy feextal Saint-Sylvestre bi nga xamee ne pape la woon moo gën a saxal ne yàlla am na doom moom lañ koy jagleel képp koo xam ne yaa ngi feetu 31 décembre weddi nga calendrier bi yàlla tëral ne moom la tëralal ñeer doomu aadama yi muy benn ñaareel ba yaa ngi ànd ak chrétiens yi di feetal koo xam ne seenu pab la woon mi Saint Sylvestre ala kulli xaal yéen jullit ñi yéen doomu jullit yi seen yoon nekkul ci 24 décembre seen yoon nekkul ci 31 décembre la gënoon a baax rek ngeen koy def mooy dëkkee subhanallah subhanallah astaghfirullah astaghfirullah ànd ak asamaan ak suuf ndax lu tax mooy guddi la yoo xam ne nii ñi ngi ci tuumaal suñu boroom di ci sosal suñu boroom di ci wax loo xam ne nii asamaan ak suuf ñi ngi koy jooy loolee ngal la waay julit xam leen loolu yal na yàlla delloo ñu ci pas-pasub lislaam yal na ñu yàlla boole ci jaamam yi ko jébbalul yal na ñu yàlla boole ci jaamam yi rafetal nañ koy jaamoo yal na ñu yàlla may ñu ràññeente diggante ngëm yàlla ak kéefér yal na yàlla boole ñu ca jaamam yi muy teral àdduna ak alaaxira allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin